loolu rek la. mën nga laaj nag lu lu lu sew loo xam ne célibataire yi ñoo ma yóbbante woon ci oustaz ndax célibataire yi nee nañ bu ñu jullee marié ñoo koy moom oustaz yi dem bay waxtaan ci loolu loolu est-ce que du wàññi un peu jaamu yàlla bi. ci célibataire ah. ah? yàlla ne lu waay def ci lu baax yaa ko moom bu dee lu bon it yaa ko moom ñu naan julli célibataire rek julli marié marié mooy lan. soo amul loo takkee jabar bul takk bul lor doomi jàmbur laa darara wala diraara julli yàllaa ko moom bokkul ci sëy tabaski yàllaa ko moom bokkul ci sëy aj màkka yàllaa ko moom bokkul ci sëy ku la ko wax waxul dëgg laa wax jullig marié amul jullig célibataire am amul jullig yàllaa am jullig yàlla ku la ko wax waxul dëgg julli leen ngeen bañ commencé songu diini ji yàgg na de ca tëjum jumaa ya ñu teg ci léegi góor jigéen yàlla ne xaaral ma ñëw dinaa leen indi loo xam ne moo gën a garaaw góor jigéen dama leen di rey ngeen di lab may rey ngeen di accidenté di dee ndax dootu leen tudd lii dafa am luy julli célibataire man sama julli defe nga ne awma jabar ñu koy jox ko waaye yow ban célibataire yow nooy def man am bi la saalian fani nafsi ak man kaana lilaay kaana yàlla ne aqimoo salaata julli leen daa tudd marié daa tudd non marié aqimoo salaata julli leen ustaas yi génn bëgg xaw ma baase la baase du bës baase baase day daw biir baase la day daw seen biiri yi waxu leen dëgg firi leen aqimoo salaata julli kon loolu binduñu ko fenn am soxla si li mu wax mooy naan julli tudd ñu célibataire tudd moo salaata. kon ñi ñuy gëmloo naan ñu ay. seen marié ëpp yoo waaye dañuy fen nga naan malaan maa la wax loolu waxuñu dëgg nañ firi ak moo salaata ak ban amila saali an fali nafsi ah julli fa waylun lil musallin alladina an salaatihim saawoon yàlla nee na ñuy sàgg ne julli ñëpp safara lañ jëm. lii alxuraan ko nga naan way di bëgg a baase bul boo lekk iran méttiwul waxu yàlla la la waa ji dama ni sëriñ bi hmm. ku ma toogal ci àdduna nga weddi yàlla hmm. wax lu mu waxul hmm. weddi yonent bi diine dama lay dóor maa la wax loolu te gis nga sama loxo bi bu ma li ciy dóor ngay faatu benn sëkk nekku ci loxo bi bu ma lay dóor ngay faatu man duma ma xale